ausbillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa ashaabihi tayibin altahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant jawriñu dëkk bi muy Cheikh Mahamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ne moo toog toogaayub Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu ñu koy ñaanal suñu boroom yokk aw fanam mu àggale naal yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon naal nañ ko ak naal boppam yi nga xam ne naal bi ci gën a rëy mooy université bi nga xam ne moom lay taxawal ngir jàngkat yépp man di gindeeku xamaat lan mooy njàngaleem sëriñ bi ñu ko ci ñaanal bu baax a baax a baax suñu boroom àggale ay naalam ñun ñëpp talibe ñu ànd ko moom. ginnaaw bu loolu jàllee tey jii ñu ngi ñëwaat fii ci barab bu sell bi da daaray kaamil mooy barab boo xam ne saa bu ko tuddee rek sunu xel day dem ci as Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu taala anhu mi nga xam ne ci xereñam ak ci xam-xamam ak ci fitam wu dëgër wa moo taxawaloon barab bii ngir muy barab bu xam-xam di barab bu gëstu di barab boo xam ne képp koo xam ne danga ngaa jug ngir bëgg lu baax ak di gëstu jëme ci lislaam barab bi mooy sa ballukaay kon ñu ñaanal Cheikh Abdoul Ahad suñu boroom yokk ay leeram te it njaboot gi nga xam ne ñoom la fi bàyyi ak Cheikh Sidi Ahmad jiitu ca su boroom gën a guddal aw fanam lool te yàggal ko fi ñuy nuyu jëwriñu barab bi muy Cheikh Moustapha Diatara ñu koy ñaanal moom it suñu boroom guddalaw fanam lool di nuyu jëwriñ ji nga xam ne moom moo ñu yombal barab bi muy Baye Modou Diop ñu koy siyaare bu baax di ko nuyu di ko ndokkeel di nuyu it waa bi nga xam ne ñoom it ñoom la àndal ci liggéey bi muy waar wi TV ñu nuyu jëwriñ ja nuyu ña nga xam ne ñoo fay liggéey ñëpp di leen ndokkeel di leen ñaanal suñu boroom defal leen tawféex tey nag ñu ñëwaat ci waxtaan woo xam ne dafa jëm ci xam-xam ndax barab bi ku ko tudd rek xam ne barabub xam-xam la te barabub xam-xam xam-xam rek lees fa mën a waxtaanee kon dañoo ñëwaat ci barab bi ngir defu fi waxtaanee ci xam-xam bu ñu waxee xam-xam nag xam-xam dafa bari ay fànn yaatu na lool fànn gu ne mën ko ca jukki waaye tey dañoo nekk ci weer woo xam ne weer wu am ngënil ci lislaam la weer wu am wàccuwaay la weer wu tedd ci yàlla subhanahu wa taala mën na ne weer la woo xam ne mooy anniversaire julli ci lislaam kon nag weer woowu ci lan ne ñu bëgg sof ay kaddu ngir waxtaane weer woowu mooy lan ak weer woowu nan la taxawee ci lislaam ak weer woowu nan la taxawee njëkk lislaam kon sunu waxtaan tey mi ngi jëm ci weeru rajab ndax dañoo ne ci weeru rajab te nit ki lu nekk war naa xam lan la ca diina wax taxawaay ban la ca war a taxaw nan la ci war a doxe loolu mooy tax addunaam jag alaxiraam jag loolu nag tey jii ñu ngi ciy ànd ak sëriñ Xaasim Mbakke sëriñ Xaasim nag buñ ko tuddee ci ñi nga xam ne dañuy topp télévision bii di Waarwi TV du jar ñuy présenté naan mooy kan yaakaar naa bu ñu àndee moom ci biir waxtaan wi ñu baree bare bari danañ xam kan mooy sëriñ Xaasim Mbakke ndaw la waaye it ndaw lu fonk lislaam la ndaw la loo xam ne dundam gépp da koy def ci gëstu ak jàngale gëstu ak jàngale lislaam ak di xeeñtu jaar-jaari mag ñi baax na daanaka loolu mu ëpp ci ay waxtoom ndax ñun ñu ko jege xam nañ ci dara kon tey moom lañ bëgg a dalal ci waxtaan wi ñu ànd ak moom ci lan mooy weeru rajab bu ñu dalalee sëriñ xaasim sëriñ xaasim da lim ñuy njëkk a wax mooy rajab nan lañ ko gisee ci luxa luxatul arab yi buñ ko waxee yan tur la ci rajab am nan lañ koy wooyee ci luxatul arab yi dana ci ñëw xamal ñu yan la luxatul arab yi di wooye weeru rajab loolu dana ci ñëw suñ xaasim boo noppee ci loolu dana ñëw wax ñu rajab njëkk lislaam ndax njëkk lislaam nan lan gise woon weeru rajab ndax ñi nga xam ne ñoo fi jiitu lislaam ñu fonkoon weeru rajab lan danañ ci danañu wax njëkk lislaam xeet yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon weeru rajab woowu nan lan ko gise woon loolu suñ xaasim danañu ko wax su noppee ci loolu danañu wax wàccaay yu rajab am ci lislaam ak i ngëneelam wàccaay wi nga xam ne weer wi ñu nekk di weeru rajab am na ko ci lislaam ak lan mooy ay ngëneelam loolu sëriñ xaasim dana ci dikk boo noppee ci loolu dana dikk ngëneelu woor weeru rajab ku ne xam na ne weeru rajab weer wu baax a woor la ndax bari na ci ay ngëneel yoo xam ne ñëw na ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu wax na ci ay ngëneel yu baree bari ci woor weer wi nga xam ne mooy weeru rajab moo xam ko ci mën a woor ñaar ba ñett ba màng weer wépp loolu it sëriñ dana ci dikk leeral ñu ci ay leeral waaye nag danañu wax atte atte bi nga xam ne woor weeru rajab am na ko atte bi nga xam ne woor weeru rajab am na ko sëriñ dana ci dikk waaye danañ ci dikk ci naafile yi nga xam ne mi ngi ci weeru rajab di naafile yoo xam ne bari na ay ngëneel lool boroom xam-xam yu baree bari ballu nañ ci wax ci ay ngëneel yu baree bari yoo xam ne am na ci naafile yi nga xam ne weer ci nekk na ci biir weer wi ñu wax weeru rajab waaye loolu ci suñ xaasim noppee dana ñëw wax ñu ci sikri yi nga xam ne am na ci weeru rajab yi nga askar yi nga xam danañ ko ci def mooy yu ama am solo loolu suñ xaasim dana ci dikk baaxe ci mbokki taalibe yi loolu bu ci noppee dana dikk wax ñu xew-xew yi nga xam ne xewoon na ci weer wi ñu wax weeru rajab ndax weer la wu bari ay xew-xew am na ci xare yu bari yoo xam ne amoon na ci waaye xew-xew bi nga xam ne bokk na ci xew-xew bi ci gën a ràññeeku mooy rañaan googu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane woon jóge woon ci màkkatal mukaram dem Jérusalem ca baytul maqdis loolu la ñuy wax isra jóge foofu dem ca juróom-ñaareelu asamaan mooy isra wal mihraj loolu kon loolu mooy mihraj gi waaye nag mu jëlee fa sërite bu duun muy julli kon weer yi mën na ne mooy anniversaire julli muy weer wu màgg weer wu tedd ndax julli amut ponk bu ko gën a rëy ci lislaam ndax ponk bu mën di doon ci lislaam daanaka at ba at nga koy def waaye julli mooy loo xam ne wax saa bis bu set da nga ko def juróomi yoon ci bis bi kon loolu mooy li gën a màgg ci lislaam te ci weer wi la ko suñ borom subhanahu wa taala joxoon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ xaasim dana ci ñëw wax ci yaatal ci lool bu ko waxtu wi xajee waaye bu ci noppee dana ñëw wax wax ñu téere yi nga xam ne ay boroomi xam bind nañ ko di wax ci lan mooy ngëneel yi nga xam ne weeru rajab am na ko téere yi nga xam ne boroom xam-xam yi baree baree bare bind nañ ci di wax ngëneel yi nga xam ne weeru rajab am na ko ak weeru rajab ndaka la taxawe ci lislaam téere yooyu nag bari na bari goo xam ne dee sut mën a indi lépp waaye sëriñ Xaasim dana ci xool yi nga xam ne moo ci gën a jàppandi mu indi ko baaxe ko mbokki bi kon yii mooy tomb yi nga xam ne bu ci waxtu wi xajee danañ ko fas yéene faram-fàcce ak yéen ci waxtaan wi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaan ak yéen di ko wax ci mu jëm ci wàllu xam-xam kon xam naa dañuy daanale foofu kàddu gi daal jox sëriñ xaasim mu nuyoo daal di tàmbali dugg ci waxtaan wi aoudu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nastaiinu bi من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لساني راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk taal bi ñu ngi leen ziar bu wér di ziar mboolem ummatul islam bi di ndokkeel mboolem mbokki jullit yi ci weer wu tedd wii di nuyu kilifa ak dëkk bi Cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal yàlla sunu borom subhaanahu wa may ko mu yeggale ay naalam di nuyu bu wér a wér mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom it lañ janool ñu nar a ànd yéen ci laabirante ci ay masail yu aju ci ay baat wala ma ne ba tey ay baat ci loolu ñuy rafetlu bu baax eh, ànd gi ñuy ànd ak tout le temps suñu télévision bii di waar wi TV di rafetlu itam dalal gi di rafetlu itam dalal gi ñu am ci euh, administration bi nekk ci daare Kamil di jiital ci bopp ba sëñ Moustapha Diatara ba ci euh, Baye Serigne Diop euh, di rafetlu itam ibbi ibbi ibbeegu am solo gi nga xamante ne suñu naataango bi du Cheikh Euh, Babacar Aboubacarine Sakho ubbee na ko ñuy rafet lu itam bu baax topp gi noroo ni ñëw ak yéen nag ci ni ko waxee rek euh, jarul di baamuwaat ay tomb yu wuute ci ngëneelu rajab lim njëkkoon ni wax ni moom lañuy ñuy tàmbalee moo di baatul rajab buñ ko waxee mooy lan rajab nag weer la wu tedd woo xamante ni avant lislaam umma ba fa newoon milla bi nga xamante ne ñoo toppoon Ibrahim daanañ ko màggal fonk ko ba lislaam bi mu ñëwee tamit suñ borom subhaanahu wa taala wanewaat ci alquran ak sunna itam wane itam luy feddali ak xorma gu mu am borom xam-xam yi itam yàgg kaa sonne ba tax na itam sëñ Tuubaa itam bu ñu xoolee ci ay mbindam dinañ gis luy tegtala loolu mu xamle ni weeru rajab dafa bokk ci weer yi nga xamante ni ay baat lañ ci di ci def ay mustahabaat comme li muy wax naan ci tazawudu subaan wa arqabu fi sardi sahri rajabi kadal muharramu alal muntaxabi su ko defee ñu gaawtu ci waxtu wi rek eh, di wax ni baatub rajab buñ ko waxee baat la bopp mi ngi jógee ci rujub gii firi ak màggal kenn ci boroom xam-xam yi luxatul arabiyya yi ku ñuy wax ibnu daxiya boo demee ci téere bi ñuy wax fadailu chehru rajab alxalaal bind ko nee na jamoo rajab rajab buñ ko dee jamoo jamoo bi mooy arjaab jamoo bi itam dees na ko jamoo rajabaanaat des na ko jamoo itam arjibatun dees na ko jamoo itam arajibun dees na ko jamoo itam rajabiyun des na ko jamoo itam eh, arjibatun ak arjab yooyu yëpp ay xeeti jamoo la yoo xamante ni jëmmi mufrad bi jagoo na ko im ndax yi ma wax lool baatal rajab itam am na ay asma yu bari bari na ay tur Sëñ Tuubaa itam buñ fàttali ko waxoon na ni lu bari ay tuur day tegtale ak kawem euh, li anna kasratul musamma saami dalilatun alal musamma saami euh, loo xamante dafa bari ay tur bëri gi mu bari tur dafay tegtale ak màggam kon ni mu amee ci yowmal qiyaam boo demee ci alxuraan tuddee na ko euh, yowmul hawl tuddee na ko tur yu bëree bëree bëri yow mu diin ndax noonu tamit noonu la amee ci weeru rajab bëri gi mu bëri ay turni nii lu muy tegtale lu dul ak màggam bokk na ci ay turam rajab bokk na ci ay turam asam asam gi firig ñàkk dégg mooy ñàkk dégg mooy ak tëx ndax li waral tur woo mooy weeru rajab njëkk lislaam yéefar yi dañ daan def seeni guerre lu mu bari bari bëri bu rajab ñëwee danañu teg guerre bi tegandi armes ba weeru ashhurul xorom yi jàll waaye nag weeru rajab xare daaw ci am ashhurul xorom yi itam mooy dul qaada dul xijja muharram rajab yooyu yëpp dañ kaa xormaaloon ba tax na daawuñ ci xeex doo ci dégg jaasi yuy dalante kon doo ci dégg doo ci dégg googu liñ ci jublu mooy doo ci dégg ay jaas yuy dalante ba tax ñu tudd ñu tuddee ko asam mooy ak tëx ak ñàkk dégg bokk na ci ay turam itam rajmu mooy ak jam ndax ci weer wi itam seytaane lu ko neexul moo ci am mooy ak jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci xeetu njëkk yi nga xam ne dañ ko ciy jëm bokk na ci ay turam itam ashhurul xurum ndax dafa bokk ci weer yi nga xamante ni dañu ko xormaal ca bu yàgg ba tey euh, bokk na ci ay turam itam almuhalla mooy lu kawe ndax lu yëkkati woon ci ñoom bokk na itam ci ay turam alfard tur woowu nag sharia moo ko jox bokk na ci ay turam itam munsilul asinati loola imaamul buxaari moo ko nettali ci saxiixam bi aljaamiu aljaamiu saxiix rajab nag nekk lislaam ni ma ko waxee rek arab yi fonkoon nañ ko lool di ko màggal daawuñ ci xeex sax daawuñ ci xeex arab yooyu nag mooy ñi nga xamante ne dañoo sosoon ci millatu Ibrahim di topp ay jeexitalam waaye nag teewut am na ci ñenn ci yéefar yi ñoo xamante ni daa daanañu jalgati bay tuxal weer wi di ko yóbbu ci yeneen yeneen jamono ngir bëgg a yeggali seeni guerre yu ñuy def ah, di fàtte fàttelu loolu nag seen euh, da leen daan dolli sax ak kéefar nag moo tax suñu borom subhaanahu wa taala di leen ŋàññi ci seexa bu muy wax ci Alxuraan naan innama nasiyu ziyadatun fi l kufri yudillu bihi alladina kafaru yuxilluunahu aaman wa yuxarrimuunahu aaman li yuwaatiu iddata ma xarama allah dañuy fàtte fàtte lu te loolu nag di leen dolli nag ak réer ñuy daganal loo xamante ni euh, ci genn at danañ ko xaraamal ci beneen at waaye nag loolu suñu borom subhanahu wa taala daf kaa lim mu bokk ci yu xaram yi ñu daan def loolu nag lu leen suñu boroom ŋàññee la xotti guñ daan xotti xormay weer wu tedd wii teew nag weer wi am na ci ñoo xamante ni ñoom mësuñu kaa xotti ak xormaam ca jamonoy jaahiliya ku ci mel ni maam yonent bi ñuy wax mu mudar aku xeetam te dañ ci daan gën a yokk seeni jàmm yàlla suñu borom subhanahu wa loola sax nag moo gën a waral euh, weer wi ñu koy tuddee mu mudar ba tey bu ñu wéyee ci suñu waxtaan wi tomb bi nga xamante ni moo ci sës muy wàccuwaay bi weeru rajab am ci lislaam kon dañuy dellu ci alquraanu karim dellu ci sunnatu nabawi xool lan la alquraan wax ci xormay weer wi bu ñu delloo dañ fekk aslu boo xamante ne alquran nasal na ko ci xurum euh, xarma goo xamante ne weer wi am na ko ndax yàlla sunu borom subhanahu wa wax ni inna inna iddata shuhuri inda allahi isna achara shahran fi kitabillah yawma xalaqa samawati wal ard minha arbaatu xurum yàlla sunu borom subhanahu wa taala nee na mboolem weeri mboolem weeri lislaam mooy weer yi nga xamante ne dafa tënku ci xamariya tamuy euh, ati ati ati ati ati weer wi nga xamante ni bokkut ak shamsiya weer yi nga xamante ne dafa tënku ci at weer wi lépp lépp lépp bi mi ngi tollook fukk ak ñaar waaye nag ci biir lool am na ci ñeent yoo xamante ni yu ñu xormal la ñeent yooyu nag sunnatu nabawi moo ñu ko leeral ndax boo demee ci imaamul buxaari ak muslim soloo nañ xadis boo xamante ne yonent bi salaa sallam nee na ci assanatu ithna achara shahran minha arbaatu xurum thalaath mutawaliyat dul qaada dul xijja muharram wa rajabun mudaru lladi bayna jumaaday wa chaban yonent bi salaa sallam nee at mi fukki weer la ak ñaar am na ci ñeent yoo xamante ne nag yu ñu xalmaal la ñett yi dañoo sës te muy dul qaada dul xajja muharram benn bi nag mooy bi nga xamante ne dafa beru te moom lañuy waxee moom lañuy ñuy moo mudar nekk diggante ñaari jumaada yi ak Shaaban ba tey boo demee ci euh, kenn ci mufassiruun yi ku ñuy wax qadaada imaam alqataada bi muy tafsir aayab fala tazlimu fihinna anfusukum mooy aay bi suñu borom subhaana taala di wax yëfër naa leen bu leen tooñ seen bopp ci weer yu tedd yooyu qataada nee na tooñ ci ashhurul xurum moo gën a màgg ci tooñ yàlla suñu borom subhaana ci lu dul ashhurul xurum kon loolu ba tey dafay wanewaat ni def lu baax ci ashhurul xurum moo gën a màgg def lu baax ci lu dul ashhurul xurum ginnaaw bu weeru koor jàllee ba tey jëlee nañ ci abu hurayra radiyallahu anhu moo wax ne yent salaa salaam nee na chaabaanu chahri wa rajabu chahrullaahi wa rajabu chahrullaahi wa ramadaanu chahru ummati yent salaa nee na chaabaan sama weer la waaye rajab nag weeru yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ramadaan nag weeru xeet wi la ba tey jëlee nañ ab xadiis boo xamante ne euh, imaam Anas moo ko nettali moo wax ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na weeru rajab nim kawee mboolem weer wi mu ngi mel ne ni alquran kare kawee mboolem wax yi weeru chaban ni mu kawee mboolem weer wi mi ngi mel ne ni ni ma kawee mboolem anbiya yi weeru ramadaan ni mu kawee mboolem weer yi mi ngi mel ne ni yàlla suñu borom subhaanahu wa kawee mboolem jaamam yi ñu wéy ba tey ci ngëneelul woor weeru rajab jëlee nañ ci anas mu ne yentu sallallahu alayhi wasallam nee na am na ci ajana dex goo xamante ni mi ngi tudd rajab képp koo xamante ne woor nga ci weeru rajab benn fan yàlla suñu borom subhaanahu dana la nandal ci googale dex jëlee ci Abu Hurayra moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam musta woor benn weer bu mat sëkk gannaaw Ramadan lu dul ak Rajab jëleen ci Ibn Abbas ba tey mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na koo xamante ne woor na ci ashhurul xurum ñeent weer yooyu yàlla sunu Boroom subhaanahu benn fan bu mu ci woor dana ko ci defal mu ni benn weer bu ci wooree lu mat fukki fan dana ko defal fan wu ci ne aw yiw jëlee nañ ci Ibnu Abbas ba tey mu wax ne Yonent bi sallallahu nee na woor bis bi njëkk ci weeru rajab kafaara la ñetti at woor bisub ñaareelu weeru rajab kafaara la ñaari at woor bisub ñetteelu weeru rajab kaffaara la ci bépp weer goo xamante ni kaffaaral goo xamante ni jàppal ni fan wu ci ne toll na ni weer ba tey jëlee nañ ci ibnu ba tey jëlee nañ ci abu darda im wax ni ku woor bisub ñaareelu weer rajab da nga am yoolu fukki siddiq siddiq bu ñu ko waxee mooy koo xamante ni yegg na ci ngëm gu toll ni ngëmuk anbiya yi te tam bu ëllëgee yemul xam dana ram lu toll ni la siddiqun yi di ram te itam dana tàbbi aljana ànd ak siddiq yooyu ku woor bisu ñetteelu weeru rajab yàlla sunu borom subhaanahu wa taala la sa bàkkaar yi yëpp seere loo loolu mala malaaka yi ku woor bisu ñeenteelu weeru rajab yàlla sunu borom subhaanahu jox la ci tuyaaba yoo xamante ne dana toll ni tuyaabay tuubkat yi nekk ci àdduna ji yépp sa téere jëf yi itam danañ ko boole ci téere jëf yi way texe yi koor bisub e, juróomeelu weeru rajab boo xamante ni da nga dekki di jëm ci fa ñuy àttee yàlla suñu bopp subhaanahu wa taala danañ booleeg leer gu rëy goo xamante ni ñëpp koy seen tey itam danga am lu toll ni joor yi nekk ci suuf gi yëpp ci ay tuyaaba koor bi sub juróom-benneelu weer rajab boo jéggi siraat doo am benn coono te itam da nga siraat te doo te kenn du la xisaab te itam booy ñëw ëllëg yoon xam da ngay ànd ak leer goo xamante ni nit ñi dañ ciy mën a leerloo ku woor bisub juróom-ñaareelu weeru rajab yàlla sunu borom subhaanahu wa taala tëjal la mboolem juróom-ñaari bunti sawara yi ibbil la mboolem juróom-ñetti bunti ajana yi ku woor bisub yàlla sunu borom ubbil la mbooleem juróom-ñetti bunti ajana yi fa la ci neex bu ëllëgee yow ma xam nga jaaree ci ku woor bisub juróom-ñeenteelu weer rajab yàlla sunu borom subhaanahu wa sa téere jëf yi dana ko boole ci ay liyin dana ko tàbbal aliyin tey itam booy dekk eh, génn ci sa xabru da nga ànd ak leer gu rëy goo xamante ne nit ñi sax dana ci am ñuy wax naan kii mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam te itam da nga tàbbi aljana ci lu dul xisaab dañuy wax ne sax loolu nag mooy li gën tuuti ci ci la nga fay am ku woor bisu fukkeelu weer rajab eh, sa mbooleem ñaawteef yi danañ ko soppi def ko ay tiyaaba te danga nga mel ne ko jaam yàlla suñu boo subhaanahu wa taala junniy at yoo xamante ne da nga ciy ànd ak koor ànd ak muñ ànd ak di sàkku tiyaaba koor bisub ñaar fukkeelu weeru rajab ëllëg yam xam yàlla suñu boo subhaanahu wa taala mbooloo mu bëree bëree bëree bëri koor bisub fanweereelu weeru yàlla suñu boo subhaanahu wa dana yebal ak kàddu goo xamante ni day woote ci asmaan naan yow waliyu yàlla bi bégal bégal ci teraanga lu màgg màgg màgg te mooy da nga gis yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ànd ak siddiquun ak shuhadaa yi ak saalihuun yi te loolu lu rëy rëy la su boobaa nag dana la wax ñetti baat texe ñeel na la texe ñeel na la texe na la waaye nag jëmmi weeru rajo boobu noonu euh, dafa am àtte ci fiq foqaaw yi dañ cee am ak wuute ci attem li ma da wax léegi mooy ngëneel lim am ci alquran ak sunna ak manzila bi am ci biir lislaam waaye foqaaw yi am nañ ci ak wuute buñ delloo ci euh, mazhabu abu xanifa dem ci fatawal hindiya nga xamante ne fatawa ba lépp ci mazhabu abu xanifa la Euh, Abu Xanifa asxaabam dañuy wax ni bokk na ci marxubaat yi yi nga xamante ne yu ñu xemmeem loola doomu aadama bi ci di ko jëf ci yu baax ñeent la dañuy wax ni sax baat yi dafa am ay xeet waaye ñeent yi ci la bokk ñeent yi bi ci jiitu mooy asuurul xurum yi euh, lenn ci asuurul xurum yi muharram nga woor ko ba ca toppaat mooy rajab nga woor ko ba ca toppaat di shambaan nga woor ko kon ñoom jëluñu asurul xurum yëpp boole ko ci margu baati waaye yooyu noonu boole nañ ko ci ba tey boo demee ci mazhab Malik gi nga xamante ne ci lañ nekk Sëriñ Tuubaa itam joxoon ñu ndigal ci ñu ngoy ci imaamul Xarashi ba muy chara Xalil nee na def na lim ci koor yi nga xamante ne dañ kaa sopp woor muharram ak chamban ak rajab ba tey boo ñëwee ci kifaayatu taalib borom kifaaya nee na woor weeru rajab lu ñu xemmem loola ba tey boo demee ci madhab euh, boo demee ci madhabu yi Euh, imaamu Nawawi nee na ci majmoo bokk na ci koor yi nga xamante ne dañ kaa sopp ashhurul xurum ba tey boo demee ci euh, asnaamu taalib bi nga xamante ni euh, Zakaria al Ansaar yi moo ko bind nee na weer yi gën ci woor mooy ashhurul xurum mooy ñeenti weer yooyu rek dul qaada dul xijja muharram rajab ba boo demee ci Azz ibn Abdusalaam nee na ñi nga xamante ne dañuy weddi koor ci rajab ñooñu ay jaahil lañ ci attay sharia li fi nekk sax mooy ki nga xam ne moo koy woor li muy def ak xurba la loolu yoon la ci jege jege yàlla sunu borom subhanahu wa taala jege jege sunu borom subhanahu ki nga xam ne moo koy weddi nag kooku dafa réere at tey sharia loolu Aziz ibn Abdusalaam ab fataawaale bu mu defoon ci ginnaaw buñ ko laajee muhaddisuun yi nga xamante ne dañuy naq da dañuy weddi inkaar di woor weeru rajab kon dafa mel ne ñeenti ngir yi yëpp ñett yi ma njëkk a tudd te muy mazhabu abu xanifa ak shaafi ak malikiya ñëpp dañoo dëppoo ci euh, nekk gum nekk mustahab nekk gum nekk ci marxubaat yi waaye bu ñëwee ci euh, mazhabu Ahmad ibn Hanbal foofu moo am ak wuute tuuti boo xamante ni sew sew bu gàtt la rek euh, waaye taxul nag mu doon wuute googu ndax ñoom boo demee ci kashful qanaa dañuy wax ni dañu sip ber weeru rajab lépp nga woor ko waaye ci biir googu dana den ci kaw bu fekkee ni dog nga ci benn fan wala nga woor weer ba mu jeex boole kaaku benn woor beneen woor woor beneen beneen weer bu dul ramadaan nga xamante ni beroo ko rek moom ba mu mën nekk ak farata kon ñi nga xamante ne ñooy inkaar di woor weeru rajab nañu xam ni Omar ibnul Xattaab ba muy dóorlu nit ci woor weeru Shaaban ak lu mel ni rajab di ko inkaar ak ku mel ne euh, dawlatul abbas yi ñi nga xamante ne ci ki lañ bokk daan ko tere euh, di gën a dëgëral seeni seeni seen i seen i seen i seen i seen i seen euh, i nga xam ne ñoo moo gën a dëppoog seen tabian ak ku mel ne lam defoon yooye nekkul delluwaay yoo xamante ne mën nga kaa jël fu la neex nga bëgg ko cee de ci lu dul nga xool an la ya taxoon an la ya taxoon du dara lu dul bañ mu nuroog ay farata bañ mu nuroog ay farata kon ñoom sax ci mazhab Malik ci mazhab Ahmad ibn Hanbal ñàkkay inkaar ga dana deñ ci kaw boo ci dogee benn fan wala nga nga nga nga woor weneen weer ba nga xamante ni du nuróoti farata su ko defee euh, weeru rajab itam ni ma ko waxee rek weer la woo xamante ni dafa bëri ay jaamu yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala yoo xamante ni dañ ciy sopp nit ki di ko di ko ci wéyal kon euh, wax nañ lu ajo ci euh, siyaam yi koor yi ak ngëneel yi waaye teewut des na yeneen lu mel ne julli ay nawaafil yu ñu ci def des na itam ay adkaar yoo xamante ni rot na ci euh, bis bi njëkk ci weeru rajab def na ci julli lu mat ñeenti rakka rakka bu ci njëkk bu njëkk ak fukki lixlaas ak ñeent ak kaafirun bu ñetteel jàng ci fatiha ak fukki ak ñeent ak alhaykumu takaasur bu ñeenteel bi nga jàng ci fatiha ak euh, fukki lixlaas ak juróom ak ayatul kursi yu ñett bisum ñaareel des na ci jàng euh, des na ci julli lu mat euh, fukki rakka rakka bu ci ne nga jàng ci faataxa benn yoon ak qul yaa ayyuhal kaafiruun benn yoon bu ñetteel bi des na des na ci naafila euh, naafil nag ay guddi lañ koy def moo ci gën boo ko mënee def euh, diggante guddi gi boo xaajee ñett xaaj ñetteelu xaaj ba euh, mooy li ci gën boo ko mënut nga teel kaa def bu la wóoree ni ngànt lay doon ci guddi gi waxtu yooyu boo nga teel kaa def ci boo jullee gee ba noppi rek ñu tolloon ci bisum ñetteel bi da nga ci jàng da ci naafil da fi da nga ci def ay naafil lu tolloog euh, fukki rakkaab rakkaab bu ci ne da ci jàng fatiha ak ida jaa nasrullahi bisum ñeenteel bi da nga ci lu tolloog téeméeri rakkaa rakkaa bu ci ne da ci jàng falaqi ak fatiha bii ba ca des nga jàng ci falaqi ak naas ba ca eh, waaw ba ca bu njëkk bi da nga ciy jàng fatiha ak falaqi ba nga jàng ci falaqi ak naas di ko toftalee noonu di sëlmal ba keroog ngay matal téeméer yi bisub juróomeel bi dee def na ci naafila la tolloog juróom benn rakkaa rakkaa bu ci ne nga jàng ci fatiha ak lexlaas fukk ak juróom bisub bi des na ci na ci naafila lu tollook Euh, ñeenti rakka rakka bu ci ne nga jàng ci fatiha ak lixlaas ak falaxek naasi bu ci ne ñett yoon bisub juróom-ñetteel bi des na ci jàng des na ci naafi la lu tollook ñaar fukki rakka rakka bu ci ne fatiha ak lixlaas ak kaafirun nga jàng ci itam ginnaaw boo jàngee yooyu ba noppi falaqi ak naasi ñetti yoon bu ci ne na nga koy bàmm ñetti yoon farax ak naasi euh, bisub juróom-ñeenteel bi des na ci naafila ñaari rakka rakka bu ci ne fatiha ak alhaykumut takaasur bisub fukkeel bi des na ci naafi la euh, fukki rakka ak ñaar rakka bu ci ne nga jàng ci fatiha benn yoon ak lexlaas ñetti yoon ba tey bisub ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar bi nga mooy kasu rajab mooy mooy tolloog kaso bi des na ci la lu tolloog fukki rakka ak ñaar rakka bu ci ne nga jàng ci mawudatayni ak tawxid maanaam falaqi naas ak euh, qul a'udhu euh, bu ci ne nga jàng ko lu mat ñeenti yoon su ko defee bisu fanweereel bi tamit des na ci naafila ñeenti rakka rakka bu ci ne nga jàng ci faatixa benn yoon ak euh, lixlaas fukk yoon kon loolu mooy naafila yi nga xamante ne aju na ci waaye nag am na ay askar yoo xamante ne rot na ci askar yi euh, bu ci jiitu buñ demee bi àgg ci bisu juróom-ñaareel bi da ngay wax astaghfirullah laa ilaha illa huwa waxdahu la sharika lahu wa atubu ilayhi loolu nag boo ko defee sopp nañ boo noppee nga tëjee ko ak saraxe goo sarax doomu adama ci koo xamante ne yaayoo na ko boo ko defee yàlla sunu borom subhanahu wa taala dana wàcce ci yow yërmandeem ak njégal bisub juróom-ñetteel bi itam sopp nañu ko wax laa ilaha illallah te junni yoon waaw laa ilaha illallah lu tollook limu junni yoon boo ko defee yàlla suñu subhaanahu wa dana la bindal euh, téeméeri yiw ci xarafo ci ne euh, te itam dana la tabaxal lu tolloog téeméeri dëkk ci àjjana ba tey bisub euh, fukkeel bi ak ñaar des na ci jàng astaghfirullah dul jalaali wal ikram min jamii alladi min jamii dunub astaghfirullah dul jalali wal ikram min jamii dunub wal asaam loolu boo ko defee yàlla subhaanahu wa taala jéggal la sa bàkkaar yi jiitu yëpp bisub itam euh, fukkeel bi ak ñett dees na ci jàng lixlaas téeméeri yoon euh, waaye tamit bisub aljuma joo xamante ne ci biir rajab la boo ko ci defee yàlla sunu borom subhaanahu wa taala dana la booleek leer gu lay xëcc ëllëg yowmal xiyaam ba tàbbal la aljana weer rajab itam weer la bu bëri ay xew-xew yoo xamante ne xew na ci ñu bàyyi ci xel ndax bàyyi xel li jàll njariñ la ñeel way gëmi yi loolu moo tax yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di wax yent bi naan ko fa dakkir fa inna dikra tanfa'ul mu'minin kon nag bu fekkee da ngaa fàttaliku wala ñu fàttali la loo xamante ni dafa jàll tey luy jariñe te jariñu la dara kon a xoolaat ndax sa ngëm desut wala déet ndax yàlla dafa ni fàttali fàttali dana jariñu way gëm ñi kon nag fàttaliku lu am solo la waaye tamit jariñu ci jéem a jariñu ci fàttali yi tamit am na ci solo bokk na ci ci xew gàddaay gu njëkk gi ci leen ko defee ndax ñaari gàddaay moo am benn gàddaay bi mi ngi am ci atum juróomeel ci gàddaay booba lañ demoon euh, atum juróomeel bi ci atu gàddaay gi booba lañ demoon xabasa benn bi ci dege lañ gàddaay nag wuti madina kon hijratul ula ilal xabasa mooy gàddaay gu njëkk gi dem xabasa loola ci weeru rajab wii la xewe woon naka noonu tamit xaswatu tabuk ci weeru rajab bii ci la xewoon yooyu yëpp nag boo xoolee jullit bi war na ci bàyyi xel ci ñoo xamante ne dañoo nangoo ñàkk seen bakkan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa taala war na ñoo jéem a xeex suñuy bakkan tamit ngir yàlla suñu borom subhanahu wa taala comme que xare bu ndaw bi jeex na benn xare moo ci tege tamuy xare bu ndaw bi bu mag bi tamuy jihaadul akbar jihaadul nafs moo fi des kon nag nañ ci taxaw bi ci tegaat mooy isra julli li sëñ Aboubacar Sakho di wax léegi mooy mees naa wax ne weer wi mooy anniversaire julli ndax ci la yonent bi jot julli ci la defoon isra wal bu am e, kiimaan yu bëri yooyu nga xamante ne sunu borom subhanahu wa ta'ala moom lay wax naan subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu e, naka noonu tamit maarikatu Yarmuk ci la amee woon naka noonu tamit ci lañ ibbee Dimashq fatxu Dimashq ci la amee woon naka noonu tamit am na ci borom xam-xam yoo xamante ni wax nañu ni ku mel ni Qataada ak Zayd ibn Aslam kon ci riwaayab Ibnu Abbas tamit ak Qataada moom ma doon léegi ak Zayd ibn Aslam yëpp euh, wax nañ ni ci weer wi lañu soppi woon xibla bi euh, bàyyee jublu masjidul aqsa di jublu ci euh, baytullahil haram teewul nag am na ci borom xam-xam yoo xamante ne ñu ngi ci xilaafa loola di wax ni Chaabaan la waaye tamit ci weer wi ay nitu yàlla yu bëri gën nañ ci àdduna ñu tudd ci ñeent ñoo xamante ñett ñoo xamante ne ku ci ne surtout yonent bi sallallahu alayhi la bokk na ci ñi gën a fees ñooñu ci suñu dëkk bi ak suñu réew mi ak suñu continent bi ku ñuy wax Cheikh Mahmoud Fadal nekk ci njabootu sëñ bi euh, bokk na ci itam ci ñooñu kenn ci euh, surtout yonent bi sallallahu ñu koy wax Abdul Baqir ci la gane ci la gane woon naka noonu itam al mujaddid al kabir euh, imaamu diin jalaaluddin mu muallif boobu nga xamante ne ndeysaan lu mu bind ci ay téere kenn xamul lu mu toll macha allah nekkoon Égypte euh, Asyut moom it ci la gane woon àdduna kon bëri na ay ahdaas yu ci xew euh, xam naa ñuy bëgg a wàcce ndéegul suñuy kàddu foofu di wax ni weer lawu mata bàyyi xel looloo tax Sëriñ Tuubaa di ñu soññ naan ñu wa argabu fii sardi sahri rajabi kadal muharramu alal muntaxabi kon ñun taalibi Sëriñ Tuubaa war nañu bàyyi xel loolu bu baax weer la woo xamante ne borom xam-xam yi yàgg nañ cee sonne lool ba tax na sax loolu moo waral ñu def ci ay téere yu am solo euh, ca bu yàgg ba tey bokk na ci ñu bind ci weeru rajab bi ngëneelam euh, ku ñuy wax ahmadul yi moom moo bind téere bi ñuy wax Euh, kitaabu fadlu shahru rajab bokk na ci ñooñu itam aliwil asbahani moo bind téere bi ñuy wax kitaabu fadlu siyaam ndax noonu tamit imaamul qazween yi bind na téere bi ñuy wax kitaabu fadlu rajab ndax noonu tamit ibnu hajar al asqalaani al xaafizul kabir cheikhul islam ci bind téere bi ñuy wax tabyinul ujub fii maa war a fii maa warada fii ahadiisu rajab téere boobu itam leeral na ci lu bëree bëri ci ahadis yoo xamante ne dañ koy wax ci weeru rajab bii baynal bayna bay bayna tadaif ak mawdu kon ñoom seen téere yooyu bis boo ci delloo ku ci dellu rek ci koo xam dafa bëgg ay marjan ay delluwaay ay source yoo xamante ne mën na kaa am ci lu mu dund ci diggam boroom boroomam ci ruuxam ci weeru rajab bi loolu doy na ci sëkk ñu wàccandi suñuy kàddu foofu rek di sant bu wér a wér mbokk taalibe yi ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu defal ñu tawfiq barkat Cheikh Xadim bismillah kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax sëriñ Xaasim ci waxtaanu am solo bi nga xam ne waxtaane na ko yaakaar naa képp koo xam ne topp nga ko dañ ci jële xam-xam dañ ci dolleeku bu baax a baax a baax ndax loolu rek mooy njariñul waxtaan ndax waxtaan lii solom mooy ki koy diglu mën a xam lan la ci jariñoo yaakaar na ko topp waxtaan wi dañ ci jële njariñ yu baree baree baree baree baree bari ci li nga xam ne moom la tàmbalee wax luxatul arab yi lan la gisee rajab yan tur la am ci rajab yaakaar naa ko ko topp dégg nga ko wax na it njëkk lislaam arab yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon nga xam ne ñi ngi nekkoon ci diine yonent yàlla ibrahim alayhi salaam ñoom it nan lan fonke woon weer wi nga xam ne mooy weeru rajab nga xam ne daawun ci xeex daawun ci def yu baree baree bari boo xuloog sax ba weeru rajab jot dangay dem baalu ko àq ngir màggal weer woowu nga xam ne suñu borom subhanahu wa weer wum fonkoon la ba léegi weer wum jox cër la weer la woo xam ne li ci xew bari na lool nga xam ne bokk na ci ñeenti weer yi nga xam ne moom la sunu boroom wormaal weer yëpp a màgg ci yàlla waaye sunu boroom da cee segg ñeenti weer yi nga xam ne moom la ñuy wax asfurul xurum mooy ñeenti weer yooyu mooy weer wi nag bokk ci weer wi nga xam ne moom ñetti yee dañoo toftaloo waaye moom dafa beru mooy weeru rajab inna iddata suu inda isna asara saaran fi kitaabillah yowma xalaqa alsamawati wal arda minha arbaatul urum muy ñeenti weer yooyu nga xam ne suñu boroom da ko fonk lool nga xam ne arab yi fonk gu àggoon na ci màggal weer yi ba nga xam ne buñ doon xareek nit sax ba weer woowu tero dañuy dakkal xare booba ngir wormaal weeru rajab yaakaar naa bu fekkee nag ñi nga xam ne ñëw ay jullit ñoo wormaal weer woowu kon képp ku di ab jullit war nga bàyyi xel ci weer yi nga xam ne suñu borom da ko màggal warmal ko ba boo ci yeggee nga fonk ko warmal ko ba bakkaar bañ la caa topp loolu ab jullit war na koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci suñu jamono ji ndax jamono ji bari na ay xew-xew yu ci xew lool waaye nag boo doonee ab jullit di topp li nga xam ne mooy xew ci adduna bi suñ borom subhanahu wa taala am weer yoo xam ne da koo tudd ne weer yu warmal la boo dee ab ngay bàyyi xel weer yooyu ak bis yi nga xam ne suñu da ko warmal muy bokk na ci bisi ajjuma ak bokk na ci weer yi nga xam ne bokk na ci weer yi gën a màgg nga xam ne suñ ci jugee ña nga jëm ca nisfu saxbaan jëm ci ramadan muy weer yoo xam ne suñ borom da ko war maal lool loolu ab jullit war na cee bàyyi xel bu baax a baax di ko topp ab jullit su gën a dafa war a xam lan la yittewoo ci diinam jii di lislaam ndax boo nekkee ci diine war ngaa xam diina ja la muy bañ nga wattandiku ko la diina ja bëgg nga cay xëy di ca gont loolu mooy njariñul ab jullit ndax jullit dundam g daa war a fees dell ak i ngëneel indi bi salaasam daraan wax ne ab jullit li mu wuteeg ab yéeféer mooy ab yéeféer lépp lu mu def du ci ami tiyaaba jullit nag lépp lu mu def yéen a ci am tiyaaba suñu borom da ko cay bindal tiyaaba kon jullit dafa war a xam ne dundam gépp tiyaaba la dundam gépp dafa fees dell ak ngeneen ci kaw mu xam ko kon ab jullit mu war a nekk ci jamono jii nga xam ne jamono ju tar la jamono ju yéemi la te it ñu bari dañuy fàtte ne ñu ngi ci mujjantalu jamono yonent bi sallallahu wax ne diggante yoom li des ci bis penc jot mi ngi mel ni diggante takkusaan ak timis te nag na bu càgg jant bi xong lool man li des ci àdduna tukki mi ngi mel ni jant bi lii ci des nga xam ne boobal la te jant bi soo bëriwut toog na ba ci yàgg mu tàllal ñaari baaraam baaraam bu dëm ak baaraam mu sànnikaayam ne li des ci àdduna tukki nii la toll kon ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj ci yonent yi moom nañ mujj yónni moo lay xamal ne li des ci àdduna bëreetut moo tax xew-xew yii di xew ci suñ jamono bari lool mu jaaxal nit ñi lool bokk na ci mbas mi nga xam ne xew na ci suñ jamono ji mu jaaxal nit ñi lool loolu ab jullit da ci jàngee ne nattu la bu suñ boroom wàcce ci kaw suuf noonu la ko ab jullit di dégg jàpp ne nattu la bu yàlla wàcce ci kaw suuf li ko fi mën a jële du lenn lu dul li nu sunu sëriñ di wax tusul gune di sax ci ñaan di sax ci jéggulu yàlla subhanahu wa taala loolu rek mooy li nga xam ne su ko ab jullit saxoo suñ boroom dana yërëm jullit ñi teggil leen natt bii ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne saa bu julli ñi saabu bu suuf si ñi fi dëkk demee ba bew sax ci lu neexul yàlla suñu borom day wàcce ay jàngora ak i balaa ak i musiba yoo xam ne doomu adama yi dana lot ci saafara ko te loolu yaakaar naa suñu jamono ji ñun ñëpp moom la ñuy dund kon nit ñi dañ daan sonne ci ñaan ak ci farlu def lu baax te jamono ji képp ku ne rek war ngaa tiit ci sa bopp kon nii sëñ Xaasim doon jàngale kenn ku ne war na ci bàyyi xel li nga xam ne ay ngëneel la ci nga ko ji farlu di ci def xam ne doomu aadama li des ci ak dundam bëriwul te it dund barsàq dund bu yàgg la nit ki dana fa am temps boo xam ne kenn du xam ñaata junni at la fay am kon nag diiru bi gàtt bi nga xam ne moom ngay def ci àdduna ci ngay mën a fàggoo loo xam ne boo demee foofa ci yomal xiyaam ca barsàq da nga ko mën a am ndax barsàq kat la fa nekk mooy ku fa nekk da nga añ da nga reer danga ndikki ndékki la ngay añee di ko reere di ko ndékki mooy jëf yi nga doon fàggu ci àdduna su fekkee jëf yooyu nag nekkutoon jëf yu baax rëcc gu méttee méttee métti métti lay mujj Sëñ Tuubaa mi wax mi ngi wax ci silkul jawaahir ne boo demee barsàq am na fa ñoo xam ne ci coono rek la ñuy nekk duna am lu lekk duna lu naan te loolu li leen ko teg mooy li nekk woon ci àdduna kon kii dund te faatoogut war nay bàyyi xel ci demee noonu jël dundam gépp màng ko ci def ko lu baax weer wu ne nga xam la ca yàlla saxal ngëneel yi nga xam ne moo ci nekk nga farlu ca di ko def kon loolu mooy li nga xam ne moom la sëñ Xaasim doon waxtaane ñëw ci ngëneel yu baree bari ci weer yi ñu farlu ci naafile yi farlu ci askar yi nga xam ne moo ci nekk farlu ci ngëleel yi nga xam ne mooy weer woor woor woor euh, koor yi nga xam ne nekk na ci biir weeru rajab màggal weer yi màggal weer yi nga xam ne moo ci sës muy ñu waajal weeru koor wi nga xam ne moo nekk ci diggante saxbaan ak nisfu nisfu saxbaan gi nga xam ne moo topp ci weeru rajab ñu koy bay xel bu baax a baax a baax kon ab jullit daal lii waru ci àdduna mooy waxtu wu ne muy topp li ko diinam diggal waxtu ne muy wattandiku li ko diinam tere loolu su ko defee ak dundam day ñoŋ ak dundam day set ak dundam day gën a kawe rek kon loolu mooy li nga xam ne mooy waxtaan wi nga xam ne ñu ngi leen ko doon defal ñuy gërëmaat bu baax a baax di santaat bu baax ña ko tàmbali woon rek Cheikh Abdou Lahad ñor gi nga xam ne xam ñoroon na ko kon ne xam ne dundam gépp xam-xam la ndax taxawaay bu rafet bi nga xam ne amoon na ko ci ak dundam ba taxawal lu rëy lii nga xam ne ay junni junni nit ñi ngi koy jariñu loolu mooy dund gu riis nga xam ne fee mu ne tiyaaba ju baree baree bari mu ngi bàyyi koo fii di ko fekk ngir yéenu ju sell ji nga xam ne amoon na ko yéenu jooju nag moom la sunu jëwriñ ak Cheikh Mamadou Muntaqa mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ahmadul Xadim am muy naal ci xam-xam ndax jamono ji kon ne xam ne li mën a dundal nit li mën a seeral nit population bii di ñëw mooy sones bi nga xam ne moo jubli si li leen mën a aar dëgg-dëgg mën leen a tekk yoon du len lu xam-xam moom la sëriñ bi xam moo tax mu sonne ci université bi nga xam ne mi ngi koy tabax ñu koy ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yokk aw fanam ba mu yeggale ko lim ci séntu sunu borom subhanahu wa taala defal ko ci kon mbokk yi foofu la ñuy wàccee sunu kàddu ndaw waxtu yi jot na wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu